salaamaaleykum euh, mbok internet yi nga xam ne yeena baxo di suivre bi di chaîne bi nga xam ne déjà mom modi di Saint-Louis TV tey nag bu ngeen gisee ñu taxaw fi nekul lenn lu préparé leen benn émission bi nga xam ne mom la wax solution mën naa ne ku solution amna lu jiitu solution li nga xam mom modi cause mom modi conséquence solution bi nak tay mom la ñu ñew yéene waxtaan ak yeen mais nak duñu yag dañuy dugg ci marché yi fépp fo xam ne nag war fa dem dañ fa dem xol lan moy solution bi rawatina aussi tim li nga xam mom modi di couvre-feu bi parce que comme ni ngeen ko gisé fi bu ngeen xolé Sénégal lu muy doxé en ak saint bi mais duñu yàgg damay ànd ak sama cameraman ñu daal déplacer wu dugg ci biir roq roqaan dem marché caméraman da nga may topp ñu dugg ci biir xool gars yi solution bi fan la war a mën a génnee si xel yi te def lu ñu waar raxas sa loxo ba mu set toog sa diwaan bul wuji mbootaayu kenn feebar bi day law moytu dëgër bopp ak dëgër fi duñ bokk jàmm xarit del daw ñu bàyyi xel si taalibe yi ne si mbedd mi ko tane ok merci ah comme ni lañ koy waxee woon sànq dem nañu fi nga xam ne dèjà moom mooy euh, wetu police moy couvre-feu bi en plus li nga xamné déjà moom moy euh, Covid 19 parce que lu la waxé solution mom du baye dara gars yi topp ma dugg ci bir ma gisante ak mom lan la may wax. asalaamaaleykum euh, kilifa gi ñu ngi lay nuyu di la ziar naan la dalal ak jamm ci chaîne bi nga xamné déjà mom moy Saint-Louis TV tay nag comme niñ ko waxé tay mom dañuy ñëw uniquement set ñi nga xamné déjà mom ñoom ñoro lu jëm ci wàllum coiffure. parce que gis nañ ni carrément ni kat euh amna cause mais amna na conséquence am li nga xam déjà tuuti mom moy li nga xam moom solution tay li nga xam ne moo di waa Saint-Louis TV ñëw set si la an nan nga dundé li nga xamné mom moy Covid 19 bi ak yow sa côté bi place bi nan ak nan la demee ginaaw bi la nuyoo ba paré waaw maa ngi leen ñëp di leen ziar.

kuréel def fii dugg si moo tax yow comme nga jël say méthode yi nga xam ni précaution aar sa bopp aar client bi di nettoyer say tëndal bu mu baax di nettoyer sa place te it aussi il faut que le le client se sent en sécurité il faut que client bi sent ni moom il est en sécurité ndax actuellement fi mu ne ñëpp tiit ndax ndax ndax ndax ndax coronavirus ñëpp tiit kenn wóolatul kenn ku ne yaa ngi xool sa morom comme si kii dafa am wala kii amul moo tax loolu léegi jàppale daal mooy prudence ak góorgóorlu. ci fànn yëpp daal. ginnaaw comme ni ko waxee léegi ñi nga xam ne déjà dañuy ñëw di wat si ab da gis koo xam ne comme par exemple yow ni nga takkee masque moom aussi takkul masque lan nga leen di conseillé ñoom ñi xam dañuy ñëw fii uniquement pour mën di ñëw di watu si. waaw li leen di conseillé moom mooy comme li ñëpp xam rek moom ku dugg si fii balaa nga dana dina jël alcool defal la ko nga raxas sa loxo wala nga dem raxas ko fii si biti balaa ngay si boo toogee aussi dina la wax ni nga sol sa masque tax ko mais boo toogee fii di watu bu la neexee doo sol masque mën nga bañ a sol masque parce que masque karaw bi day dugg si biir kon dalay dalay gêné mais ñun dina sol suñu masque protéger suñu bopp protéger wàlle la ndax masque bi dafay daf lay protéger protéger bi day tax yow yow doo lor client mais client bi aussi du la lor waaw mooy métti yi soloyantoo bi tamit ñaar ñetti client yi jël ñu si des toog bu fekkee ñooñu ñi doon pare ñeneen dugg si mais duñ dajaloo ñu ñëw fii dañuy dañuy sàmmante ko méthode yi ñu wax di yëpp si télé bi may distance ku ne booy saxat def ko si bras court bi wala boo boo boo booy touché nga jël sa mouchoir après nga def ko bi aussi ngay raxas sa loxo tout le temps tout temps chaque fois saa boo paree raxas sa loxo wala nga def alcool ak client yi loolu daal mooy li nga xam ne moom noonu waa kër docteur di jàngal te ñu ngi siy góorgóorlu bu baax a baax. léegi yow lan ngay conseillé ñi nga xam ne ñoom ñooy sa ay mbokk coiffeur yu mel na comme. bon man li may conseillé coiffeur yi mooy ñu a set waaw ndax man lii man maa ngi lii.

lan la fay bàyyi seet sa morom. jërëjëf euh, sëñ bi waa Saint-Louis TV ñu lay gërëm di la sant comme euh, ni ma ko waxee woon naa lii lépp mën nañu bu ñu ko dee wax uniquement c'est juste pour mën daal di def solution waaye tamit du ñu yem foofu kase parce que tamit bu ñu gisee coiffeur am ñoo xam déjà dañuy def orange money am ñoo xam dañuy def wari ñoom it ñu laaj leen tamit nan ak nan nañ dundee bi naka la dalal ak jàmm ci li nga xam ne moo di Saint-Louis TV uniquement ñëw fii tey seet si la waxtaan ak yow lan nga dundee coronavirus bi en plus tamit ak client ni mu doon ñëwee yan matuwaay nga ci jël kon yow léegi lan nga jàpp li nga xam ne moom mooy solution déjà comme concept bi nga xam ne Saint-Louis TV jël na ko lan ngay gën a ñaax ñi nga xam ne ñi ngi ñi ngi def Orange Money comme yow ak Wari.

waaw tey moom yaa ngi ànd ak waa Saint-Louis TV uniquement ñëw fii pour mën a waxtaan ak yow li nga moom moo ko dundee. waaw gis ma ngaa bay daal benn client tey ñuy respecté consignes yi quoi takk masque di sol gant xam nga dina si baax. ne war nañ a a li jàngoro ji. waaw pour ñi may dégg rek mën kii mën a

production gars yi xaar leen ñu ci bu baax a a